maa ngi nuyu sama benn waay ñu ngi koy wax Guèye Ndiaye borom Kër Massar borom feere ak béton yi ak borom bunt yi muy Guèye Ndiaye maa ngi koy ziar bu di ko bëggee waaw d'accord ci biir loolu euh, gis nañ actualité bi am au Sénégal muy mbër yi waaw euh, président de la République dalal na leen pale bi mu jug ay coow waaw wax fii mbër yi dañ leen a woo jox leen xaalis non yow bi nga gisee audience boobu am ah. euh, gis nañ mbëri géej waaye am na ñu dem mais am nañu demul am na ñoo mm. xam ne ñu ngi ci wax am ñoo xam ne waxuñu ci mm. ban réaction nga am bi nga gisee ne mbër yi dalal nañ leen biir palais waaw xam nga loolu coow li bari na trop temps yi ku nekk ngi gën di wax euh, man li ma ciy wax mooy tey jii Balla Gaye ba muy téye million ba muy am kër ba Macky Sall toogul nekkul président Lac de Guiers ba muy am kër di téye million Macky Sall nekkul président Gouye Gui ba muy téye million di am kër Macky Sall nekkul président Alioune Seye ndopp waxi nopp euh, Modou ba muy am kër di téye ay million Macky Sall nekkul président Amath Sène ba muy am ay kër di téye ay millions Macky Sall nekkul président Gris Bordeaux ba muy am ay kër di téye di téye millions Macky Sall nekkul président lii Macky Sall njëkkiwu ko fi Ablaye Wade na nañoo dalal ba mu fi nekkee président comprendre nga tey président woo la tous les euh, président tous les sénégalais président tous les sénégal ku mu woo nga wuyu ji ku woo nga wuyu ji Macky Sall mooy suñu président wuyu Macky Sall woo la taxul nga ànd ak taxul nga ànd ak Macky Sall tey jii ay supporteru Balla Gaye Balla Gaye Macky woo ko mu ñu lem taxul ay supporteru Balla Gaye ànd ak Macky Sall Modou Lo waxi nopp ñoom la dëgër ñoom guy gi ñoom ñëpp waxi nopp comprendre nga wax ju bari ji matu ko wax ju bari ji matu ko te mbër yi dong yi nekk en activité nekkutu fa suñuy kilifa ñoo nga foon suñuy papa ñoo nga foo woon suñuy niyaay nga foo woon ku ci mel ni Pape Diop Basson ma nga foon père Mohamed Ali woon ñoom maam góor gi Njaay ñoom bu Ndafa ñooñ suñuy kilifa lañ suñuy papa lañu comprendre sul lool ñu jox leen cër ñu jox leen cër moo gën ku nekk yor sa làmmeñ di wax wax bu ñaaw loolu baaxul loolu baaxul président de tout le Sénégal woo la ngeen ñëw wuyu ko audience am taxul taxul ku nekk yor sa làmmeñ di wax président ku mu woo da ngaa war a wuyu mooy sa président mooy njiitum réew mi moom la fi yàlla teg tey su fi Sonko nekkoon nekk président su wootee mbëri su ñëwee dañuy wuyu ji d'accord mais ñi tey jii non tey jii dafa naag dama la tey Macky Sall moom la fa yàlla teg moo fi nekk mooy président ku ma a wuyu ji. d'accord mi ngi wax ne euh, comme genre Tafa Mbeur gis nañ mu wax ne loo xam ne président réglé wu ko maanaam fukki at ak benn. waaw mu juróom ñetti weer leen invité. non xam nga tey jii d'accord benn côté foofu. Mhm. Euh, dafa wax da nga koy segg seggaat ko. xale yooyu di wax yëpp seeni papa ñoo nga fa woon seeni mag a nga seeni nijaay a nga fa wax soo koy wax wax dafay rafet comprendre nga wuy ji président taxul nga ànd ak président nan waxante dëgg wuy ji président taxul nga ànd ak président wuy ji président taxul nga ànd ak président su la wooyee da ngay wuy am na benn jour Balla Gaye wax na fi benn wax ñoom ñëpp ñu génn di ko remercier ah bi mu naan Sadio Mané ak ak Sonko ñoo bokk Casamance président bi mu génnee bi mu waxee loolu ñëpp dañoo gën dañ ko rafet dañ ko dañ ko rafetlu tey jii président woo leen ñu daal dem wuy ji président hmm. ku nekk yor sa làmmeñ bu ñaaw di wax wax bu ñaaw loolu baaxul. mais est-ce que du coow li ci am joxe nañ 500 millions. non xam nga man fekkewu ma yëguma tinuma hmm. ay 500 millions ak ay 100 millions loolu yëpp yëguma tinuma man xaw ma ndax fekkuma fa. Hmm. man yow affaire xaalis bi ça ne concerne pas. ça ne concerne pas. intéressé wu ma yooyu intéressé wu ma. lan moo ci am solo wuy ji bi président moo woote xam ñett nag nit ñi li leen xawoon na xarit li nu jour boobu dañoo àtte wàlle Sonko jour boobu dañoo àtte Sonko xam naa tamit loolu moo moo tax moo metti nit ñi ba ku nekk di wax waaye vraiment vraiment daal man daal xañ na loolu la jour bi ñuy atte Sonko ñu dem wuyu ji président xañ na loolu moo leen méttiwaalee ba pare coow li bari waaye man daal solo sama sago daal wax dëgg yàlla wax ju ñaaw ñu bàyyi ko mbër yi fi nekk yépp ay doomu sénégalais leen leen ñorul leen lu Sénégal mbër yi kenn gënta bëgg jeunesse bi mbër yi ndax tey suñu amee bi jeunesse bi mooy jóg di fees stade bi di leen supporter di leen supporter keroog toyos ma jàppan dafee benn booy dafa taxaw ne ma man Balla Gaye sama mbër la woon waaye banaa ko ah ma ne ko loolu la mu ne ma wattu woon dem palais ma ne ko je arrête booy sa hunta yow attention kaay yow wuyu ji président da tax nga ànd ak président président ku nu woo nga wuyu ji mooy sa président mm-hmm. a ah? mooy sa président kon loolu jarul wax bu bari yow daal da nga foog ne gars yi wax ni non non di blabla quoi mais jàppee woon non non man loolu gisuma ma ko mbooy wax dëgg yàlla man dara man daal xam naa ne gars yi leen ci metti mooy mm-hmm. jour boobu ñu war ko atte Sonko ba pare président jox leen audience bi xam na loolu moo leen metti loolu la comprendre nga. xam naa lool waaye loolu dara nekku ci ah. président yàgg naa dalal ay mbër. Mhm. Abdoulaye Wade ba fi nekkee dalal nañu mbëri. te lépp a demoon. ah nan bàyyi wax bu ñaaw ñu ñëpp euh, Sénégal moo ñu ñor jeunesse bi moo ñu ñor amuñu lu dul Sénégal nañuy waxante wax bu rafet man vraiment loolu rek laa ko gisee man gisuma ko dara loo xam ne ay li yëpp koy gisee daal xañ na moo leen naqari mooy xañ na. li ñu doon àtte Sonko jour boobu ba pare président dalal leen xañ na loolu dong moo indi problème waaye wax dëgg yàlla ñii bëgg Balla Gaye ñoo koy bëgg ba léegi ñiy bëgg Modou Lo ñoo ngi koy bëgg ba léegi ñiy bëgg Eumeu Sène ñoo koy bëgg ba léegi ñiy bëgg Lac de Guiers ñoo ngi koy bëgg ñiy bëgg Gouye Gui ñoo ngi koy bëgg ñiy bëgg Aliou Seye ñoo koy bëgg comprendre nga bëgg du xëy bañ bëgg doo bëgg ba ci ak xëy bañ déedéet déedéet fekk bëggoo woon mhm. man nag euh, saa yu ma waxee ñu ne xañ na géejawaay tax non non non samay nekkoon ak ak lu làmb fa nekkoon ak suñuy papa suñuy papa d'accord samay rakk ñoom saa kees ak foon comprendre nga ah, euh, xool du bëgg bañaa wuy président dara nekku ci président moo la woo am nga droit wuyu ko lam lay wax nag xañ na yaa ko xam ak la nga fay jëlee yaa ko xam waaye wax dëgg yàlla nit ñi dofuñu mhm. dofuñu nit ñi dofuñu d'accord waaw bu fi bàyyi na wax ju ñaaw ji nañ ko bàyyi tay rafet suñuy papa fa nekkoon mbëri dong nekkoon suñuy papa fa nekkoon mhm. suñuy papa nga fa woon suñuy kilifa nga fa woon mhm. tey jii sunu papa yi am na ñu ci feebaroon mhm. Mohamed Ali dafa feebaroon kan moo ko jëloon fi en charge du Marème moo ko yore woowoon Tunisie ah am na ay mbër yu feebaroon tey jii Marème Faye Sall moo leen jël euh, en charge faj leen waa tey jii suñu wootee duñ leen wuy ji nan bàyyi wax bu ñaaw waay wax bu ñaaw baaxul. d'accord euh, léegi ñun ñëpp ay doomu sénégalais la.